beneen day yoo xamante ne ay ndox yu tàng la pour sa askan nga ni da nga leen koy sotti ba noppi nga ko di ñu naan ñii seen askan wala ñii askan bee leen tax a jóg sa à il faut que ñu bàyyi seen xel yi ñuy fowee bu ñu nuyee bakkan jar na un milliard wala quarante cinq milliards nañ ñu wax ñaata personne ñoo dee ci mars te mambiram wax ko ay sénégalais gis ko ñii gis ay nit ñoo xamante ne solo ñu tenue yore ay kalachnikov di tirer ci ay buntu kër jàmm ñu gis ñenn ñoo xamante ne yore ay jaas ak yeneen ak yeneen ak yeneen président Macky Sall génn na fi euh, di dem ci Fuuta bi ay garde ni nga xamante ne mooy euh, euh, lu mu tudd élément bi bi xaw ma GIGN mais ay élément yoo xamante ne ñi nga àndoog ak Macky Sall di buuxanteeg ñoom loolu yëpp fi Sénégal bii la xewee léegi ñu ci contexte boobu est-ce que war nañ toog di ñu naan ay waxu sécurité yu kenn xamul gis nga président Macky Sall ak ñi muy àndal ñoo war a respecter un peu les fi ñu nekk wala fu mu nekk noonu sénégalais yi ñoo ko fa teg. donc tey bu ñuy wax ay waxu ay sécurité ak ay xawma lan secret défense encore une fois Sénégal amul benn secret vu que ni lépp dañ la koy defal. sa formation militaire sax dañ la koy defal. ñu lay defal formation xam nga xam nañ ñaata lim nañ xam nañ yow sa sa sa say compétence ak sa lépp. donc ñooñu tey jii dangay ñaan jàmm ak salaam rek parce que amul lenn loo xamante ni yow am nga ko sa biir réew li ñu buggoon def kay wala bu ñu loo xamante ni waroon nañu ko def bu ñu ko defoon tey jii mën nga prétendre à une ak autonomie mooy yow nga former say militaire bopp. am na Sénégal am na benn sénégalais boo xamante ni peut-être euh, Pape dina ko dafay defar ay armes ici au Sénégal. Mm-hmm. yaakaar naa sax dafa mujj génn Sénégal di dem yoon du ñaata sénégalais ñoo xamante ni am nañ xarañte mën nañu defar ay Séné ay ay doo leen jël nga jox leen moyens yi nga xamante ni dañuy defar ay armes même di ko jaay sax sous région bi mais yow ci ay état ngay dem wala ci ay privé yoo xamante ne de moralité douteuse après les euh, les gens quand yooyu muy defar tamit euh, arme conventionnelle lii la arme yi nga xamante non mais loolu loolu loolu moom euh, mooy aide bi rek da nga koy ah. accompagner seulement mu dem wuti ji li nga xamante ne peut-être mooy licencié yi nga accompagner ci loo xamante ak euh, frontières yi nga xamante ni ni ñu mel et puis avec le terrorisme et tout non man waxuma ni sax ba tey amul amul amul amul amul amul kii de amul amul ay licence ak li muy mm-hmm. dafa nekkul lu conforme mm-hmm. parce que euh, kooku ay compétence am ñu ngi koy ñu ngi koy jël feneen ak feneen ak feneen ci àdduna bi donc je pense que ni li muy defar loo xamante ne lu conventionnel la mm-hmm. mais même bu nekkoon sax nekkul lu conventionnel bu ko état bi accompagné woon mais tey jii ñaata ñaata ñaata bénéfice nañ si def parce que ñaata Sénégal ñoo si nar a liggéey et puis mooy secret défense bi foofu lay mënee nekk parce que arme euh, boo demee ci États-Unis seen arme yi ñu utiliser mais ñoom ñoo koy defar seen bopp ba kenn du ko xam ak ñeneen ak ñeneen am na ñu ñuy jënd nag ci bitim réew ci ay Israël ak yeneen ak yeneen mais li gën a am solo ci ñoom mais ñoom ñoo koy jënd seen bopp mais yow saa une deux trois nga dem jënd ay gaz euh, Bara avant ñuy jàll. voilà alors juste sur sur quelques euh, déjà li ñu war a xam mooy commerce d'armes même bu ñu naan la ay réew la. Hmm. privé yi dañ ci fees dell mën na leen ci génne. Mhm. même boo nee France nga ne arme France ay privé ñoo koy def y a y a une base industrielle technologique ay privé ñoo ko moom maintenant puisque c'est un domaine régalien euh, en tout cas c'est un domaine critique mhm. moo tax état teg loxo di ubbi di wuti marché pour ñu jaay loolu ça important donc privé yi mënuñu see mënuñu leen si génne mais nañ nekk privé quand yu yu yu normaux donc c'est le caractère douteux de l'intermédiaire qui pose problème mhm. l'autre affaire mooy euh, avec Pape Makhtar c'est vrai euh, la question du secret défense fourre-tout là mhm. c'est ça peut en ce moment que suñ fii amuñu secret défense parce que gars yi xam ne suñu lépp parce que ñoo ñuy former ça c'est c'est c'est pour dire que voilà y a pas de secret défense ou que l'armée n'est pas organisée ou que les FDS, la formation c'est des coopérations euh, day Sénégal day jël ay nitam di leen yóbbu feneen ñu leen di former ñeneen di indi seen nit ñu leen di former parce que y a des défis d'interopérabilité boo xam ne pour ñu anticiper ko foog ñu manœuvrer ensemble mais protection de l'armée des forces de défense ou du secret la défense jég jéggi na foofu donc ce vraiment limite ñu ñu ñu ñu ñu réduire que ci que ci loolu voilà. mais je suis désolé euh, Pape Sané chaque jour nga wax ko fii suñu donne personnelles yi nga xamante ni ñun ñëpp ñun ñoo ko yore euh, données yooyu tey jii euh, boo demee ci commission cybercriminalité bële kan moo fa nekk benn tubaab nasaraan boo xamante ni tey mën na utiliser suñuy propre données Sénégal kañ la am base. ah mais ah mais. Ah, kañ la am base kañ la am data center avant suñu ay données fan la doon dem ba tey jii suñu descendre fan la jëm c'est-à-dire toutes ces informations bu ko benn pays étranger yore euh, yore sa formation mais mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo xalaat si ñoom ñu am ñu am ñu am benn secret bu ñuy garder parce que ku yore sa effectif moom moo lay naan si effectif bi ñaata personne ñoo si apte ñaata ñoo si inapte mais bien sûr tey jii boo demoon tey effectif armée américaine française boo demee internet nga gis ko c'est des c'est des informations de source ouverte données personnelles c'est-à-dire foog ngeen xam tamit lan mooy secret de la défense nationale ñu bëri dañ koy wax lan lañ classé comme secret de la défense ça c'est le premier ça c'est la première information à savoir. sa micro waxal sa boo ko xamee peut-être doo jël données personnelles. micro bi di ko dugal ci secret de la défense nationale daa am mhm. pardon c'est-à-dire données personnelles c'est une très importante mais bu ñu nee secret de la défense nationale dañu ko classifié te bu nekk daa am lu nekk ci ginnaaw. loolu tax ma ne ay formation yooyu am na solo. mais bu ñu nee secret de la défense nationale daka dépassé fu sore sore sore sore sore sore maintenant nag gars sax dañuy jël lu confidentiel bëgg classé bëgg yóbbu niveau ba parce que dañu kat ay ay niveau yu bokkul lañ. c'est ça ko ci génn ci ci ci ci ci ci ci ci ci par exemple tey jii nii Sénégal ñu xam nombre de effectifs wu force spéciale am. Ah. loolu c'est information de taille la. mais tey jii niveau mais tey jii boo duggoon sur internet. pour la France ñu wax la l'effectif de l'armée wax l'effectif des forces spéciales. des forces spéciales. Ah, c'est de c'est des données de source ouverte. Euh, euh, non c'est que dans pays là ñoom ñooy jël en fonction de li leen enragé ñu ne lii euh, secret defence la kenn du ci wax. en fonction de li leen arrangé mais pour les populations bu buñ ko jotul information bi directement mais député yi à un niveau quand même war nañu yëg ne xaalisu Sénégal bii mu ngi génn di dem tout à fait d'accord mais boo demee euh, en France y a des scandales ay Clearstream yooyu yëpp affaire de vente d'armes la mhm. mais je suis tout à fait d'accord d'ailleurs ce que député yi war nañ leen mën a habilité ba yenn yi ginnaaw ñoo teew ak ñu wax ko ñu kii ko mais dama ne confusion yi dafa bëri fi confusion amee mooy te fanaa ma laa doon wax depuis tout secret de la défense nationale daa am ci lu mu tënku dañ naan lii ak lii ak lii ak lii mooy lii lii ak lii mooy lii léegi nag problème bi mooy parfois gars yi dañuy jël lu nekk rek. même ci décideurs yi lu leen aaraat ci dugal loolu mooy problème bi. <laughs> mais moo tax ma ne tamit. exemple bi bi mu jël laa ne euh, parce que c'est c'est une manière de dire que voilà derrière les FDS y rien loolu nag je suis pas d'accord les gens font font des formations ensemble envoient parce que àdduna moo moo tëddee noonu. loolu mën mën dafa neexut a dégg dafa neexut a bu ñu la nuyee force spéciale mooy mooy force élite. Mm. mooy ñi nga xamante ñoo gën a kawee ci armée bi. une des forces élite. non force spéciale mooy mooy force élite bu ne ci kaw force yëpp ñu ne ci armée force spéciale boobu force spéciale boobu. Mm-hmm. Euh, dañ leen di former xam ñaata nañu. xam aussi ku nekk sa capacité ñoom dinañ xam par exemple bu nekkoon man ak Mame Birame la ne Mame mën na manier arme bi ak bi ak bii pamaxtax mën na lii ak lii ak lii te ñu koy xam du ay sénégalais. information yooyu noonu parce que ñoom ñoo lay jox ay armes. wax la seen type d'armement ak ñoom ci yan arme nañu nañ leen former ak yan nañu mën a utiliser mais loolu ku koy yor ci yow yoratul yor amatoo benn secret boo des. tu ne pousses pas assez parce que loolu du ñëpp ñoo koy xam. kii dem bay former ses forces spéciales. c'est parce que am ngeen partenariat boo xam ne. non mais lan la ñuy wax nii lan la wax nii partenariat mais àdduna état nañu wax. mais àdduna mais d'accord mais état mais état état Sénégal léegi mu ngi former say say say nga am ak ñoom problème ëllëg. ñoom mënuñu utiliser information wala nga yaakaar que ni capitaine bi dinaa non parce que euh, dama am ay ay ay ay euh, mbir yoo xamante ne ay réserve la du ma wax information yi nga xamante ne dafay dafay laal sécurité Sénégal. mooy li ma la wax. non moom na fi les coopérants sax la ñëwaatul si moom. ah les coopérants la. waaw moom kay foo laa bëggoon ñëw mais tey jii xam nga tamit dafa am la nga xam ne il faut que Sénégal ñu xam ñun lan lañu bëgg mënuñu aller au niveau pratiquement les plus stratégiques nga fay fekk ay coopération ay coopérants français vraiment ba léegi léegi sax am na ay coopérants américains yi sax mais ñoom sax ils se font plus discrets sax di dire sax am na lu ñu respecté as tuut mais tey jii soo xoolee l'un des maillons les plus importants des données des Sénégalais mhm. mais c'est géré par des étrangers mhm. l'un des maillons laa wax les plus importants c'est-à-dire nos données personnelles jëlal aujourd'hui le problème de la carte d'identité et du passeport malaisiens yi su leen état du Sénégal amelee un franc su leen neexee mois boobu benn sénégalais du am carte d'identité du am passeport la base de données bi nga xam ne ñun suñuy empreinte fi mu nekk qui allait être développé par un un un, un, ingénieur sénégalais dafal le logiciel bi nga xam ne moo doon développer la base de données pour les empreintes bi nga xam ne sénégalais ñoo ko moom mais on lui a refusé ça on lui a refusé ça on a préféré laisser de Iriscope développer ce logiciel là tey personne ici au Sénégal mhm. dire les empreintes issues de la carte d'identité et du passeport ndax Sénégal dañ ko stocké wala bitim réew nañ ko stocké kenn mënu la ko wax la base de données elle existe mais personne ne peut te dire si elle est stockée ici au Sénégal mais kooku c'est une atteinte grave beneen bi lii Pape Matar wax pour que ma dëggal ko quand tu prends par exemple le ministère de l'Intérieur mais l'un des conseillers du les plus proches du ministre de l'Intérieur c'est un officier de police bu xonk cuy bu tubaab bu xonk cuy quand tu vas à la division de la cybersécurité de la police nationale le numéro 2 je veux pas dire le numéro 1 parce que keroog dama fi wax numéro 1 benn gars yi en père mere ma mais c'est un officier de la police française bu xonk cuy xoolal fii demal au niveau de la gendarmerie ce sont ces gens que tu vois régulièrement demal au niveau euh, des forces armées même chose mais alors ñooñu mënuma gëm ni que ils sont juste venus là Euh, di conseil ministre bi naan ko defal lii mais c'est-à-dire ils sont au cœur du système ils ont accès à tout sinon gisuma man ndax lan France war a sonal boppam naan day jël benn Jacob wala benn André naan ko demal conseiller maam Biram et le drame le drame mm à dire à formation et à diplôme suñuy officier yi du ñu seen morom duñu seen morom les officiers sénégalais sont meilleurs que man am na benn formation bu ma def la ñuy génn am na formation bu ma def yàggul yàggul yàggul yàggul sur les les les les données personnelles la conservation et les les falsifications des document de voyage billaahi wallaahi tallaahi ñii ma ko doon defal ñu ngi may dégg commissaire de police française bi ñu yónni woon bi ñëwoon fii tous xamu ko soo yëkkati woon passeport bu falsifié nga jox ko ko ko détectel non non